liñ ci mën a wax mooy naxarlu une nouvelle fois niñ ko mën a tuddee ni procédure judiciaire yi di demee au Sénégal déjà pour loo xam ne mënoon nañ ko yóbbu sax flagrant délit parce que loo xam ne ñëpp a ko dundandoo mu leer nañ nga xam ne justice war na ko mun a tranché ni ñuy wax ci délé boo xam ne du weesu sax ñaari weer ñetti weer ñëpp xam fuñ féete bu fekkee ki ñuy topp la bu fekkee ne dañ koy daan wala dañuy consacrer culpabilité mu xam mais ñi nga xam ne ñoo ñàkk aussi ñu mën a def seen deuil tant que xamul lu xew tant que justice amul dafay dund ak naqaram day dund ak ay frustration société bi également soxla nañ xam lan moo xew ci mbiru Fallou Sène mais Sénégal dara day xew ñu coow ko benn bés justice bi di dox comme kakatar ñu tombi xaar atte bi mun na dem juróomi at ñu tudde ko li ñuy wax décalage entre bi mbir mi amee ak ate bi ñaareel témoins yi sax mun nañu fàtte li xew gis nañ ko ci ay dossiers yoo xam ne témoins yi sax dañuy varier dans leur déclaration am dañuy dem ba duñu gëmati ne justice sax dina am ci dossier bi donc atmosphère boobu la famille bi ak avocat yi di dund donc muy loo xam ne mënuñu lu ñaawlu ko juge d'instruction bi mu ngi def ay liggéeyam mais boo xoolee entre inculpation bi ak bi jour bi fee yi amee daanaka at dem na instruction bi mun na dem ñaari benn at ñaari at atte bi kañ lay doon donc tey gis nga étudiants yi chaque année ñu indiwaat mbir mi sur la table jàmm du am kenn du xam lu xew société bi du ci tiré li ñuy wax gënal ba ëllëgee ñu xam nañuy régler yu mel nii yi donc muy incertitude boo xam ne li ko waral rek mooy justice tey bu archaïque boo xam ne nanguwul a def saam ni ni ñu koy wax nanguwul a def effort yi wala réforme yi nga xam ne moom lay laaj te loolu daal loo xam ne affaire Fallou Sène bi doon na encore beneen symptôme boo xam ne day wone rek feebar bi nga xam ne moom la suñu justice di nekk. Baol info point di jox xibaar yu gaaw te wóor le portail du Baol sur le web. Baolinfo.net mën ngeen a abonné sunu chaîne YouTube Baol Info.